lañ si organisé xale jigéen yëpp ba nañ lépp ñëw di seetaan maam ah. maam yaa xew waaw loolu moom yàlla def na ko dañuy sant yàlla rek julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur teg ci suñu wasila Serigne Fallou Mbacké mm-hmm. maam gis nga li nga sant tey damaa sant pourtant damaa wattu ji woon de li nga pes si kaw na dagaraade laa woon dagaraade maam wala bii ban la <laughs> yaay sëñ Fall a na ndam yaay sëñ Fall amati na ndam ci digg si ses macha ma macha allah mais ñu gis euh, foire bi nga xam ne moom la mami organisé maam nga def ci lu am solo ci côté sa doole lépp rek muy wane ne maam daal ñëpp la fi nekkal. waaw ñun xam nga ay ay commerçant lañ mais tamit ay jaaykatu diw lañ mais lii dañ ko milieu bi dañ ko tarbiyu te nee naa la nit boo tarbiyoo dara pour yàlla dimbale la ci day gaaw. ndax liggéey boo ko tarbiwul rek doo ci mën a jariñu te lii dañ koo tarbiyu commerce dañ koo tarbiyu xam nuñ koy defee xam nuñuy liggéeyee moo tax sonnuñu benn yoon am ci la victoire waaw macha allah mais ñu gis nga exposé produit yi macha allah mu rafet lool euh, maam muy firnde rek ne maam marketing ci maam la fekk baax. waaw marketing ci man la fekk baax man lu ma def ci réew mi rek am na ñoo xam ne dañ may jépp am ñoo xam ne dañuy mer mais nañ jàpp ni wàllum euh, marketing la parce que nit booy def sa marketing bul am complexe am na ñuy dem ñoom ba dafa ñàkk classe wala dara waaye sant na yàlla parce que ñi am classe la ñu yor moom ngay yor la dawal moom ngay dawal fa ñuy tëdd moom ngay tëdd kon sant yàlla. mais maam dama dégg ne produit day cereel yaram te yow sa yaram cerewul. gars yi di wax di yàq. waaw xam nga boo jaayut. nga gis kuy jaay. te la muy defar mënoo ko. boo boo boo la nit di dàq te jotu la la lay def dina lay sànni xeer. noonu la. man man man mu nga bëri ku jug rek dóor la xeer. xale yi jaay ñu nag. jaay jaay. ñu seen xol neexul. neexul. mais am na ku ne moom day jaay ay millions de. ku gën a teg yow. ku mu feeñ ci moom. ah xaalis bëri teg ko ci kawam. da ay oto. ah da nga naan ay kalandoo kalandoo. ay kalandoo la yor. ah bon ah. oto man oto bu ma nee yor naa oto damay wane oto yi mu taxaw kaat kaat yi taxaw waaye duma gàddu ay kalandoo mbot nga xam ne suñu jamonoy maam sengoor la woon nga ñëw taxaw naan damaa yor ay oto lan mooy oto uwe la maal. waaw maam Youssou daf la may oto. Youssou Ndour ma benn sëriñ bu génnoon. waaw mu ne Savon. fekk man ñaari oto laa bu noir ak bu rouge euh, daa am sëriñ bu génn mu ne Mame Ndiaye Savon bu ma sañoon mu changé oto bu noir bi def ko oto bu weex. léegi nag ba sëriñ bi waxee lool tombeek ñu may invité TFM ma daa dem di jëndi oto ma waxaale lool parce que dama doon bañ a jënd oto nit ñi naan kii amul conseil dafay yàq xaalis nañu xool ni mi def moo tax ma jaarale ko ci Youssou Ndour man maa jënd oto bi lu rafet dama ragal non dama ragaloon woon comme nit ñi li ñuy wax naan coow leeg yooyu naan ay trois voitures te benn bu rouge bi sax am na ku koy waxaale pour ma jaay ko ko ma yor ñaar yàlla yaana mais maam sa rakk sa doom sa xarit saan léegi mu def ay témoignages yu am solo ci yow muy maman bi Guère nekk sa ginnaaw ñu ne wax dëgg fa neex yàlla solo nga ci mbir mi liggéey bi rawatina jaay bi mi jaay ci foire bi. maman sama xarit la sama doom la sénégalais ñoo xamul waaye moom xam na man xam naa euh, sama digganteeg ma moom sama digganteeg moom man ak moom la engagé nit boo gisee ñaari nit ñuy dem. ñu jote waxte lu baax wala nga taxaw ci taxaw bu baax wala nga jéem leen a jubale ak ñu mënta bàyyante dañuy ànd yàlla tax maman man maa yaayam li mu nàmp loolu la tàqamti ko te lii la nàmp te day liggéey moom en tout cas daal yaa xew maam xale yi gis nga xale yi loolu yàlla def na ko foire bi li muy rëy rëy man rek maay jaay uwee la maal maay jaay uwee la maal amal jaamu maam kontaan na waa maa ngi nuyu du nuyu asalaamaaleykum waa foire maa ngi nuyu ñëpp di nuyu mami Evens ndax mami sama doom la mami sama rakk la mu oo fi ki nga xam ne tamit Yacine Boubou la jigéen ju man góor ma ñëwaat fekk fi grande dame boo xam ne bu yàgg si Ndakaaru bu njëkk ga ba may xamanteeg moom boobu lii xewut ba may xamanteeg moom boobu xale laa ñu nekk si Ndakaaru fii muy sama sœur de sama mag di nekk di ku baax di nekk Yacine Boubou muy na bàcc li muy na bàcc li maa moom sa Ndakaaru bu njëkk ga la sama digganteeg moom en tant que sœur ak rakk en tant que nit ku am jom la ku amal jom nawleem kuy wax na nawleem kaay liggéey kaay woon nu ñu amee xaalis wala kaay woon nu ñuy liggéeyee daf may conseillé daf may yedd ma ñu fekk fa Aïda tey sama xarit yaay yaay waali balaa ko Aïda sama rakk la sama xarit la nekk si bokk si xale Ndakaaru am jom yi ma xam naa xale yi liggéey Ndakaaru xam naa ñu dul liggéey waaye nag ki ma àndal kii dama ànd ak moom sa Fatick gu njëkk maa moom politique boole wuñu maa moom nguur boole wuñu dañoo ànd naan ànd tuur maa moom muy sama rakk muy sama xarit bu amee ngente taawam maa maay ngente ba jëm yàlla tey jii lu mu xew la maa koy gérer barki dem ba mu yónnee si barki dem si foire barki yónnee foire tey ma dem te ànduma ak yow sama rak ji ku la xaar yàlla na xaddi Thérèse Faye yàlla nga yokk lu jumaay Touba bi saga Makka laa jógee te amaguma ñeent fukki guddi si barke Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba ma jógee yi ku yàlla nga xaddi yàlla nga toog ba nekk premier ministre du Sénégal dara jomb la sa yaay liggéey ne ko sa kër Baye Selbe Diouf nga nekk xale bu yaru ku bëgg Thérèse Faye li muy def rek doy naa ko xalaat lu muy doon a Ndiaye Ngom ñëwal lu muy doon a kay wax ak man mun nan ngaa falu nga soppeeku sama diggante ak yow dama ànd ak yow boobu war fa kala macha yaa ngi def xaaru Ndofène sa xaa yaa ne sama xaaru di def deuxième di sol ay tik-tik di sol ensemble mayo di football yi di def entraînement di def OPS kon ma nga xamante kon yoolu yàgg na boobu dara xaw ñu bokk benn koñ Louga Ndéb fa maa ngi yor la ngay sama rak ba nga màggee mën ngaa soppeeku ba nga màggee mën ngaa changé da ngaa màgg ànd ak man foo jëm yëpp ma loo am boole ma ci sama rak ji ma ngay déglu ba nga ñëwee kon nga risa nabi bàcc dama ndax xam nga nabi bàcc la man la xam naa ko bu baax ma la liggéey kat conteneur wàcc Dakar moo ko fi mu toog toog une semaine wàcce ma jàkkaaru la xam ne moom dañoo yàgg ma ma kii sax ntu sax mam Bassine mu ngi ma jàkkaaru lool suma ma jàkkaaru lool ko ñu ma xamante ñoom Thérèse ñu la dajale fi yëpp ñu am jom nga wuy si ñu am fula ñu nangoo liggéey xanaa conteneur Dakar kii koy wàcce ma waa yi nga xam ne ñoo ànd maa moom sa Dakar gu njëkk muy sama mag mami ku am jom wuy si na la ku baax ku soppeekuwul ku changé wut yëkkati enveloppe bi nag dimbale ko njëgi glace parce que bés bi ndax yi fi ak tey temps yi foire dañoo bëri programme dañoo bëri voo Cissé mooy ngeen fa lañ jëm moom bu ñu nii ñuy xaar dañoo bëri bu ñu paree dañuy demaat fi tey duñu guddi guddi guddi dañuy dem jaarax tey dëkkam kon kii amul tey toogaay li ñu war daa bëri te si programme la jógee ni TFM mu leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla kontaan nañu di la gërëm yow sama xarit sama rakk ji baax ji waaw léegi mami Cobra mami Cobra mami Cobra tala na tàkk ba jël la wax waaw. toi bienvenue ici madame Mbacke bienvenue waay tay ma daanu rab mami sama waaju ko woo mu ñëw waay yaa woo wayli wayli bi yaa woo ki gën yaa woo ki baax korxofoor woo écrivain là-bas. Moi, avant tout. Sauf lui.